bëri agogo mi noonu Bébé Gouy am na mu yore bébé guy gi njaago la arbitre baa ngi wax ak ñoom li règlement nangu ak mu bañ consulté na ay juge am waaw waaw waaw waaw waaw moom chrétien la ndeysaan ñaan na génn wax nga dëgg sa turandoo da daan bàyyi ba arbitre sifflé waaye bañ ko dee dagg xaalis bu bëri mu bàyyi ko waa léegi jat na dellu si mu ah ndeysaan Bébé Gouy Gui mi ngi noonu arbitre sifflé na Bébé Gouy Gui Agogo Agogo moo yor ngemb weex li tàll te lu vert li Bébé Gouy moo tant bopp Agogo nga ko sëkkatal a ah, déclenché mais dalul dafa sànni bu replié dóor na ko xeex na ah mooy mooyul uppercut boobu mooyul uppercut boobu bu dalee duma ko bëgg demee nañu weet waa ah, dóor na ko arabu dal léegi bébé gu gi na teg xool ko Gogo bébé guy gi Gogo guy gi tooñ na ko léegi moom tamit bébé ko sëkkatal moom tamit léegi sànni na mu replier daw na bal ko daw na di ko jël téyente nañu ëñ na ko mu bañ na ko mais nanguwul ñu téyante téyante nañu mi ngi sorxal ñu ngi téyante waaw waaw waa kër bébé guy gi ñu ngi koy wayal naan ko yaa ñu ko tàmmal bëre daan ñibbi cey làmb sorxal na bu sew digi TNT agogo bébé guy gi wax mi ngi dóor digi TNT ndeysaan gogo bébé guy gi ñi ngi téente bébé guy gi téye na téye bu dëgër bébé guy gi téye na téye bu dëgër téye na téye bu dëgër ñu ngi téyante daw di ko ëñ nanguwul ñu ngi téyante lonk na ko jaxabal mu kontra ko mu rof ko kalkal di ko xatar bi mu bañ delloo na ko wañ ko mu rob bëre nañu o oh, bëre nañ bëre bu rëy léegi xale yi nañoo bëre bare bu rëy la ñu bëre léegi bëre nañ bëre bu rëy léegi ñoom ñaar bëre bu rëy la ñu bëre waaye ba léegi tàggooguñu ci TNT agogo ñu ngi TNT leen ñu ngi bëre agogo bébé guy gi combat bi metti na ñu ngi téyante koy ëñ mu rasu waa da ëñ mu njoowaano ci koom arbitre ba ileen ñi ngi bëre ah. ñi ngi téyante toll bu sew agogo bébé guy gi waa sorxal na bu sew xeex nañ léegi agogo jongole na ko mu coppeelu lonko na ko ca xabal xaatar bi ko delloosi ko daan na ko daan na ko jël bi rëy na xale bi naanaan la da ko songale mu coppeelu mu teg ko lon caxabal xattar bi ko agogo bañ na mais ba muy rucce ko dafa teg fes mais démérité wul bëre na bëre bu rëy cey làmb tiré nañu ñaari mbër yi ratel moo yor ngeen mulu weex ñaari mbër yi différence de poids feeñ na fi Bounama yor moo yor ngemb lu xonq li arbitre sifflé ñu ngi leewaatoo ratal moo yor ngemb lu weex li laf Bounama moo yor ngemb lu xonq différence de poids feeñ na damante nañu baaraam waaw waaw waaw euh, téere ba dagg na Bounama suuf raxasu ratal dafa aj garde bi rek taxaw na tek demee nañu wet ñoom ñaar aaw aaw bu naa ma door daw bu naa ma daa mel ni du xeexkat waaye ratel mi daa mel ni du ndaanaan ratel daa mel ni du ndaanaan de ni muy lewaatoo nii ah foo si koy perkit waaw waaw loo waaw <laughs> ndeysaan rateel ak Bourama damante nañu baaraam a ah, ratel mi waaw ratel ak Bourama différence de poids dafa am différence de poids damante nañu baaraam Bourama ak ratel Différence de poids. damante baaraam ratel ak Bounama jëm na ko fauché dóor laaw ndokk yàlla mooy laaw boobu dalee duma ko bëgg ratel ak Bounama ñu ngi leewaatoo ah door na ko arrêt bu dal moom Ratel door ko arrêt bu dal mais bu naa mën a teg te bu suuf raxasu mu dooraat ko daw nañu daje door na ko uppercut ñu ngi téente ah, jaaduwul différence de point combat bi jaaduwul li buñ paree arbitre yi war nañoo téye licence yi xool ñaari mbër ndax dañ ne ku la ëppee kilos waru leen a bëre ci combat préliminaire te ñaari mbër yi tolloowuñu waaw ndax bu naa mi bu amee 90 kilos ci lay yem Taratel mi plus de cent kilos la waaw bu ñu régulariser dañuy xool daw na dóor na ko wéeru na ko daan na ko waaw du moroomam lii jaaduwul lii jaaduwul combat bi jaaduwul ñaar ñi waruñoo bëre